doomu 212 le miroir des Bawal Bawal. en 2019 nous avons été ñi nga Afrique en Angleterre dans la maison de Wilson Churchill à Wilton Park Nous avons ci naka la informatique politique utiliser pour pirater la démocratie on était dix man rek maa pays francophone avec l'Afrique.

waaye defar gi tax ñu sàkk ko bu demee ci loxoy nit nit ki bu amee beneen yéene bu bokkut ak defar ci lay gën a ñaawee que defar mi ngi mel ne paaka bi ñu yor sa biir waañ nga ciy ren di xar di ci fees di ci defar di ci dagg supame di ci waas waaye bis ñëwee nit ku am beneen yéene bu dul defar wala togg añ jëfandikoo paaka boobu def lu raw lu gën a garaaw defar ngeen baal ma damay intervenir ci ñetti temps rek pour gàttal ak ak temps parce que xam naa ne li li ñu war a wax bari nañ premier temps bi mooy ñëw ci faay yi identifier cinq faay yi nga xam te ni moo tax ñu mën a wax ne système bi mën nañ ko teg de côté te loolu dellu si na ci li ngeen wax bu ma jugee ci faay yi ma ñëw ci ni ñu mën a sàcce élection jaare ko ci informatique te lu yomb lay doon bay passé dama junj mané nit ki bu dee gëmul yalla té du démocrate muy organiser élection dugal ci technologie bu ko nexé diko organiser pendant cent ans té du ko ñak ñettel temps bi nak moy limay wax solution yi naka lañ mënon def ba li bañ ñoo dal premier temps bi bu ma ñëw ci fay fay bi ci ñëk moy clé USB wax ngeen ko yéen ñëpp entreprise bu sérieuse organisation bu sérieuse sax du ko utiliser ci biir entreprise am

dalay des film euh, j'allais dire 2 giga dalay dese 6 giga film bob mo jël place 2 giga mais bo supprimer film bi lan moy am 2 giga dañuy ñëwaat mais biñ ko supprimer nga japp nga xalaat ne fi nga ko supprimer baaxul soxla nga ci dara boko restaurer manam nga dem ci corbeille bi nga indi waat ko 2 giga yi day ñëwaat mais biñ ko supprimer moment bob mu nekk ci corbeille bi fu mu nekkoon te corbeille bi espace la bu bok ci machine bi waaye moment yi mu fay nekk comptabiliser wuñ ko ça veut dire que am na fu mu mën a làqatu foo xamante ni boko ko soxlawul sax mën fa tok te dula la déranger faille bi donc clé USB virus bu bu xasee dugg ci clé USB scanner clé USB génnewu wul ci parce que clé USB bi du ko fàtte beneen bi moy yow miñ jox clé USB danger bi ci am moy yow mi koy jëfëndiko yóbbu ko sa kër nar ko def ci sa machine tay conseil constitutionnel dañ ko wolu motax ñu utiliser clé USB mais man su ma wax yéen ci informatique ba wax la nit meuna pirater su la joxe clé USB lu mu cherché bu ma ko mayee boo demee doo ko utiliser parce que nan yi sa sawaay de ay affaire mu wóoru wóolu gi ko wóolu motax ñu jëfëndiko ay clé USB mais dara wóoru leen ne machine yi ngeen ko def pirater wuñ ko benen bi moy yow mi ko utiliser ci machine mu jaar ci yeneen machine bu xasse juggu ci machine bu dugg ci benen machine lu mu ramasser ci ay virus ay vers dafa am virus am vers bu duggee ci machine du conseil constitutionnel keneen ku ñëwaat dugalaat ci clem da koy jël te bu ca fekkee fichier vous pouvez ko altérer dinaa le wax lu deuxième faille à part clé USB bi mooy mécanisme de collecte de traitement et d'exploitation des données Lors dañ leen jox clé USB bu am fichier ne da ngeen ci dugal ay information Si leen ñëwee ñu jël information yi traité ko collecte mooy dugal da nga koy def système conservation ci bir clé bi lay après parce que ci machine nga koy défé Donc di ko dugal ci bir clé ndax do travailler directement ci la clé bi wala boy travailler ci clé bi ci machine lay ensuite exploitation modèle de conseil constitutionnel ñetti phase yoy bu ci une phase à risque la te bu ci nek mën na altérer données yi te bu ci nek exposer données processus de collecte de traitement des données c'est dafa indi benen question que nous ne ñu pas waxuñu ko la conservation de ces données là et la sécurité des données qui sont sensibles et personnelles données à caractère personnel très sensibles, mais qui peuvent circuler n'importe comment a ça fait rire mais c'est extrêmement dangereux troisième faille c'est la vérification et l'intégrité des données système bi vérifié dafa war a neutre moom warta xam warta jéem a ligganti day nangu rek day nangu ba pare def liñ ko sante. système bi vérifié dafa wara intègre dama gis intègre

parce que les systèmes n'étaient pas pareils. Troisième, quatrième phase euh, c'est la manipulation des données manipulation def nit la Waye nit xel mu xarañ manipuler ordinateur ordinateur bi ngay manipuler da sa WhatsApp di message salut wala bonjour système bi da lay proposer lu parce que nga ko wax learning machine learning da nga jàngal ordinateur ba mu xam ni ngay waxee bu ko defee mu la ci aidé gis nga tamit li altéré moom mu mettre en place benn virus système intelligent lay doon ma ne ko yow lii mooy sa liggéey ci machine bi moom loolu lay liggéey nit ki yëg ko mu bañ koo yëg léegi liy altere ba tax A bi yokk wala ba tax fichier bi wàññi wala ba tax ndar tëb loolu virus moo koy def ci biir machine te virus boobu ki yor machine mën naa bañ a xam ne am na ko ndax mën na koo bañ a yëg. mën na ci def antivirus yaakaar ne machine am wóor na fekk antivirus bi ca nekk mënut a xeex virus ba ca nekk doliprane day faj bopp buy metti waaye mën naa bañ a faj sibbiru te sibbiru symptôme am bopp bi metti ci la bokk. cinquième et dernier élément ci faay mooy li ma tuddee euh, woon sànq éthique bi mooy processus bi du début jusqu'à la fin traitement des données bu dee dañ koo jaaree la ci informatique dafa am ay cëslaa yoo xam te ni moo ko war a téye waaye ne warul nekk mbiru benn nit wala mbiru benn kuréel.

moy organiser élection le processus de collecte de données gis nga vous xasse am données d'ensemble li ci dess moy da ngay xam données yoy ndax mag nañ wala maguñu bo le processus de collecte de données muy comme parrainage nga am élection présidentielle 2019 bu nit ñi jëli parrain indi da superposer les parrains sur la carte électorale di nga xam exactement zone yi nga en vert zone yi nga nek en en jaune ñoy neutre yi xamuñu fuñ jëm ak jaune yi nga nek en rouge mu leer na nit ñi ala kulli hal duñ la voter parce que ñi ñu parrainé c'est sûr que buñ ci juggé keneen ku melni ñom lañ mëna a parrainé légui nak bo xasee am la superposition ba xam la coloration politique des Sénégalais qui sont sur le fichier électoral après nak ci la quatrième phase ñew 4 quatrième phase bi moy répartition et redessiner le fichier électoral maanaam da ngay sosaat benen carte électorale bu bees bu bu suqal bu jugee ci ci ci superposition euh, fichier boobu noonu. carte boobu noo koy sosee da ngay fexe ba ñi nga xam te ni buñ ñu jugoon du def deux minutes dem voter da ngay fexe ba buñ ñu waree voter ñu war def une heure de temps wala deux heures de temps ñenn ñi nga fexe ba buñ ñu naree voter jël oto ñenn ñi nga fexe ba buñ ñu naree voter tukki pour wàññi doole bi tax ñu waroon a mën a dem ak ak ak euh, motivation bi waroon tax ñu dem voter damay joxe exemple bu dee kii voter Touba la dëkk nga xam ne Touba zone rouge la nga xamné bu joggé day bureau de vote mi à 2 minutes de chez lui bo bañé mu voter da ngay jël bureau de vote yóbbu ko à 30 km bu démé 30 km, nga fexé ba bu processus électoral bi commencé nga téye l'accès à l'information électorale moy fexé ba carte électeur du ca jot à temps wala bu cay jot information fay fek du mengo wala benen des changer. 2019 vous électeurs SMS bu len di informer changement un bureau électoral un bureau de vote SMS ñun man sama sama yaay par exemple bu SMS bu ko wut du xam liñ ci bind bu ko a la vous avez bu dañ nan ko fay day Benen bi moy mettre en place un dispositif de propagande politique qui s'inscrit sur la manipulation des données gis nga dama wax sank ma ne informatique nit ñi dañ japp ne waxtaan la ni rek man suma ma ak yow nga connecté wu sama réseau internet ñetti fan mën na la ko may pour xam yaay kan li nga bëgg li ngay def li ngay wut parce que ci réseau bi ngay connecté wu mën na ci xam li la intéressé Suma xasse xasee xam li la intéressé xam sa position politique religieuse ak say opinion bu ma xasse xam say opinion mën ko détourner parce que dama lay proposer luy ñëw changer sa xalaat ce loolu li def l'information. information y a les médias classiques et il y a les médias sociaux aujourd'hui les médias sociaux sont de véritables machines de propagande et parmi cette machine de propagande qui fait ciy fake news fake news nag yéen ñëpp xam fake news mooy manipuler wax lu amut les ko ak li nga xam te ni mooy dëgg bi ay événements yu fi passé am ay conférence de presse qui ci eu a am sénégalais ci boppam ñoo démonter fake news c'était des fake news j'allais dire institutionnalisées troisième et dernier élément bi non dernier élément bu ñuy ñu ñuy sàcc élection nak euh propagande ak euh, euh, euh, manipulation sur le biais de l'information par le biais de l'information et par le biais de l'information institutionnelle buma ma jeexalee deuxième point bi moy ni ñuy sàcc élection dama ñew ci ni mënon def nak pour bañ a li lepp liñ mënon def moy utiliser la technologie pour xam te ni moom moo doon yombal li tax parrainage tay ken a waxut doublon ci côté parrainage parlementaire parlementaire parce que c'est simple on a la possibilité de savoir si xamnañu ndax nit ki mën na ba paré wala det loolu ko mëna a ci parrainage parlementaire non lañ ko a ci parrainage citoyen il fallait prendre le fichier utiliser une technologie qui s'appelle blockchain intégrer le fichier dedans et lui indiquer des requêtes ne ko bu fekkee diw dugal na diw bu fekkee mi ngi ci fichier bi bul wax dara mi ngi ci fichier bi nangul ko ko bu fekkee diw dugal na diw fekk mi ngi ci fichier bi mais pare na diw ba noppi da nga naan ko attention diw mi ngi ci fichier waaye pare na diw bu dee diw dugal na diw fekk nag nekkul ci fichier bi nga ne ko yaa ngi bëgg a dugal nit waaye nekkul ci fichier bi est-ce que maa nga jël risque dugal ko bu defee waaw jël risque xam na ne dugal na ko ci bokkut loolu bu ñu ko defoon